wuy ma. fa ma doon waxee dul mm. moom wóolu woo ko loolu nga bëgg dama ne ci mbir mii. Mm. li mu xeex nii ba toll fii fa ma doon waxee naan nanu toog nu ut pexe mu génn bokk. Mm. moo ma gënal mu war a toog di tànn tànn boo xam ne kay toog. mun naa toog siis bi changé ka du ko dëkk eh, <laughs> ah. si siis siis bi siis bi kasi toog bala mu seet toog lu nu wax mu ne waaw le président Macky Sall a signé entre les deux tours li concerne assises yi te àndu ci woon. Ah, ah. ba mu toogee nan la def. waaw nañ waxati dëgg te yàlla tax. jël juróom yi ko ci wax xel xalaat laa jëriñ. Ah, réew mi léegi sax am na fu noo toll. bu buñ fa tollee laa la wax hmm. na ku ne xalaatal boppam def li dal xelam voilà ay waay léebu léebu naqari te bëggoon naa ko firi sax yi nga wax dama ko bëggoon firi mais su ma waxee nga ne ma nanu ñaan Ousmane génn moo gën yi ñuy def nii bàyyil Pa Moussa mu ñëw li nga wax mooy wax ji mooy dëgg eh, Ousmane Sonko na génn na bokk parce que bokk na waaw nañ ñaan loolu dëggu parce que maa ngi gis gars yi succès masala mu ngi càdd waaw <laughs> Guillaume Soro mu ngi au mais Ousmane Sonko est toujours en prison injustement voilà la différence Ousmane Sonko est toujours en prison injustement fële du place am ñu ngi lam-laame candidature am injustement juridiquement ñëpp xam nañ ne dafa war a bokk kon Baye Assane li mu wax moom mooy dëgg na euh, Ousmane Sonko bokk parce que boo xoolee ñu intervenir ñëpp ils ont parlé de jeu politique bon jeu politique première personne du singulier wala jeu politique. JEUX JEU. EU ah sans X. waaw hmm. ah, ah. booy ma maa yokk X maa ci yokk X. Ah. <laughs> xam nga léegi <laughs> voilà voilà. ñaar yooyu bu mu ci mënti doon baaxul ci réew mi en 2024 on n'attend pas ça bu mu ci mënti doon du jeu bi du po Sénégal moom moo euh, aspiré. à un pays développé prosper parce que xam nañ ne am nañ potentialité bi. donc kon voilà donc kon. Euh, li nit ñi namm ci Ousmane Sonko ce n'est pas la personne de Ousmane Sonko ce n'est pas le jeu de Ousmane Sonko le jeu non non du loolu. Hmm. dafa am lu mu euh, voilà très bien justement projet am sénégalais yoo xamante ne gëm nañ ne lii mën na développer réew léegi bu doon même contenu euh, boobu noonu projet keneen am na ko avec la même probité morale avec un parcours aussi exemplaire bu Ousmane Sonko nit ñi dañuy ànd ak loolu bu ko nit di bëgg jaay doole nit ñi dañuy taxaw. looloo fi ne bëgg nga yëngal Thierno dafa nank rek. non sama xalaat lan laay laay wax donc kon tey lan moo tax bi ñu ne pluralité de candidats man dama d'accord ci loolu. ñu waxtaanee ko lu yàgg euh, cara daal pluralité c'est-à-dire jënaax bu bëggee gudd fan day bëri pax comme que jaay doole lañ fi nekkee décision de taxaw nii ñu ne lank duñ ko appliquer droit bi ne lii la ñu ne lank duñ ko appliquer mani Ousmane Sonko bu ñu ko jaayee doole ba def ko noonu du toog croiser les bras wam taxaw di seetaan élection yi foog mu am une candidature de transition et quand est venu Diomaye très bien excellent parce que euh, loolu xam naa ci radar lañ koy traité du fii moom mooy place am. mooy ba ba ñu yegg ci élection ba Ousmane Sonko am na possibilité non seulement bokk juridiquement mais même boo ko boolewul mën na jiite réew mi te bokkul élection dégg nga maam. jiite réew mi te bokkoo élection. loolu mooy. loolu dinañ ko wax ci radar yooyu du waxu fii day gudd <laughs> du waxu fii mais ak lu mën ci demee lan moo tax point d'interrogation bi ñëw ci Habib Sy. ce qui s'est passé en réalité bon seen Cheikh Thioro a raison ah Pastef Pastef len waaye it yeewi leen Habib nekk it yeewi mais li wér te wóor te am ci mbir mi moom mooy je ne sais pas nag euh, ci ban fan mais Pastef s'est retrouvé avec 23 députés bon yi eh, am na député bu décédé euh, bu dee dama juum nga kii ma mais Pastef s'est retrouvé avec 23 mm. donc 23 mënoo cee paree na ñaari candidat benn nga mën mm-hmm. dese 10. d'ici da danga koy sànni ci poubelle ba wala da nga ciy mën a consolider sa coalition bu yeewee askan bi maximiser. maximiser mais au même moment pur parrainage citoyen la dem alors que euh, le parti pur a onze députés kon ñaar a ko manqué bu ñu fàttali ne tête de ba c'est le frère Habib. bu leen euh, Pastef joxee dix ils ont onze comme pur. Mm-hmm. deux yi fu ñu jógee. Mm-hmm. li tax man pe donc kon jàpp naa ne c'est compréhensible que ni ñu am candidat bu nekk ci yeewi askan wi parce que yeewi askan wi aussi la charte bu ñu fàtte ne ku nekk day demandoo mais bu ku mieux placé amee dañ koy euh, jàppale ji mm, donc am ñu lay jàppale en cas de second tour loolu euh, nga am ko baax na parce que charte yeewi askan wi moom moo wax loolu alors man jàpp naa ne bu dul Ousmane Sonko mm. amul ku mën a gagné élection bi premier tour. bu Ousmane budul Ousmane Sonko. amul ku mën a gagné élection bi premier tour léegi ki mën a gagné deuxième tour bu nekkee suppléant Ousmane Sonko même bu dee. waa waaw waaw. foo ko teg sama xalaat la élection yu mujj sama jàngat la sama jàngat la ci élection ci euh, élection bi. li ma gis ci réew mi élection yu mujj ak fii. waaw jaar na fi de. bu la neexee yow nga wax keneen nga mën nga jàpp man laa Ousmane Sonko. gëm naa ne bu bokkee day jàll Cheikh Yérim Seck n'est pas tendre avec Sonko et pourtant il a dit. Euh, je l'ai entendu Aïssatou Diop Fall avec euh, pas Ousmane elle n'est pas tendre avec Sonko pourtant elle l'a dit kon ñi gëm ne Ousmane bu bokkee jàll premier tour du man kese alors donc kon gëm naa loolu noonu Diomaye lu mu doon doon Sonko parce que gars yi mooy Sonko man gëm naa ne mënul jàll premier tour alors si Diomaye ne peut pas kan mooy topp substitution wu Habib Sy kenn hmm. kenn non c'est-à-dire Habib Sy nekk une substitution de Ousmane Sonko loolu kenn du ko topp du xam-xam déedéet. loolu du xam-xam à la rigueur. ah à la rigueur oui Cheikh Tidiane Dièye hmm. mais Habib Sy pour man non. lu tax mais parce que jàpp naa ne euh, Ousmane Sonko bu leen nañ voté Habib Sy man jàpp naa ne li ëpp ci euh, électorat am du voté parce que électorat am du passé rek de. attention euh, mars 2021 bi mu yëngoo ba yëngu Ousmane Sonko daf leen lii ku yaakaar ne lii Pastef kese la juum nga uh-huh. donc électorat Ousmane Sonko ce n'est pas parti politique te budul parti politique rek assujettir ñu ci benn discipline de parti. luy limite Habib ci ne Ousmane. ne moom euh, ñeneen ñi ne du moom luy limitam luy limitam moom mooy déjà Ousmane Sonko euh, ascension politique am mi ngi ko asseoir ci xeex système bi. système boo xamante ne euh, Habib xam nga. sëñ Cheikh Thioro li mu wax. li mu wax man dama ciy nekk à parce que dafa ne pourtant bi ñoom di bokk ci yeewu askan wi waxuñu woon. kon tey bu ñu ko defee substitution wa garaawul bon en fait si je quoi mais man mosuma d'accord ci yeewu askan wi à musuma d'accord ci yeewi askan wi à cause de munoo di xeex système bi ak ku système bi ngénte l'histoire m'a donné raison ki système bi ngénte jóg na jàkkaarloo ba ñu waree fat système bi donc kon ba léegi ci loolu la euh, laa ne ba gëm naa ne Ousmane Sonko ci local yi mm. comme ci législative yi bu taxawoon avec les alliés naturels parce que Pastef a ses alliés naturels ba muy dem euh, législative 2017 euh, ndawi askan wi. ba muy dem législative de présidentielle 2019 gaa yëpp ñii di euh, wax yëpp dañ ko fay ne ñukk dem ànd ak Idi. mais ñëpp xam nañ ni que euh, benn lam kese du yëngatu. non waxuma lam tu as des alliances politiques et des alliances électorales non je ne dis non je ne dis pas je ne dis pas que ah. loolu mais li ma comprendre man ci nouvelle reconfiguration sociologique du Sénégal du ay affaire appareil. Hmm. déedéet pour man askan wi moom moo jël destin am en main ak quel que soit l'appareil bi nga mënti yor. fii gisuma ku fi gën a baax appareil le PDS le parti socialiste et de manière un peu subsidiaire mais gëmuma ne appareil yooyu mën nañ def c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple comme ni Macron demee woon en France dajeek ay parti socialiste ay UMP bien ancré moom mu ñëw avec un mouvement gagné parce que askan yi askan yi ñoom ñoo nekkatul ci ay dynamique de parti moo tax ma ne la Ousmane Sonko li mu yor yépp du parti politique moom moo tax mu am ko mais man jàpp naa ne ñi koy jàppale ñu ci gën a bëri ci écrasante majorité bokkul ci benn appareil politique donc kon ñooñu noonu duñ ne leen joxoñ leen fii nii rek gars yi toppee ci noonu donc euh, je pense ma que peut-être euh, Ousmane Sonko ah, euh, yëg na yëg na yëg na li xew ak yëgul li xew ah. pour man foofu tamit je suis un peu parce que Ousmane Sonko mi ngi ci prison bi ñi nga xamante ne ñi ngi ci biti nekk ay leader u partem parfois équation day ñëw mënuñu ko consulter directement dañuy jéem a xool Ousmane Sonko lan la fi doon waroon lan la doon def bu fi nekkoon c'est ça loolu mooy connaître une personne connaître euh, sa réaction sur une situation imprévue. mais contexte yi day soppeeku de. qu'aurait fait Ousmane Sonko face à cette situation. oui alors donc kon parfois. dañuy demee c'est que muy wax communiqué ba poste ba génnoon ndax moom. non non non non non non yooyu moom la moom par contre sur tout ce qui sort sur sa page moom la am na recevoir na validité am sur sa page maintenant par équation mën na ñëw taxawee noo xamante ne du ñu mën a consulter yu Ousmane Sonko mais li ngay xalaat mooy ci situation bi lan la Ousmane Sonko doon def bu fi nekkoon. mën nga juum ah. mën nga juum enquête mën nga juum te njuumte day am léegi nag soit da nga koy assumer nanu assumer ne hmm. dix députés yooyu noonu ci Pastef am na ci ñu bëri ñoom ñoo assumer seen choix de parrainer Habib Sy choix da nga koy assumer. Ah. pour que ëllëg. nga xam ne yow yaa ko defoon en connaissance de profonde de cause bu boobaa lu ci mënti. ñëw nga kii ko laaj sëñ bi ndax kan la pare na ci ñooñu. waaw mais naa ne Cheikh Thioro jàpp naa ne Sonko la <laughs> pare <laughs> moom Sonko la pare te te te it nag Sonko moom. Euh, Pape Moussa ba ñuy wax substitution. wala plan B plan Z. day fekk Ousmane Sonko du mën a bokk. Ousmane Sonko mën na bokk jërëjëf xam naa li may jëkk a rek Thierno lay rectifier ndax taxawu moom boo ko bokkatul Yewwi Askan Wi loolu moom xanaa lu waaye ñàkk chiffre actualité politique di nga xam ne taxaw génn yeewi yeewi léegi moom pire Pastef parti de ci faal bi ak yeneen parti ñoo consulté kon yeewi askan moom dañuy def xam ne Pape tey du ma d'accord yow hmm. ndax yaakaar naa élection locale yi fi la fekk législative yi fi la fekk bëri nag gox yoo xamante ni Ousmane Sonko vidéo rek la def maire bu falu fa ah te falu ñëpp amul kenn ku xëy di voté ji xam maire ba nga dem voté. da ngaa koo xam moo la nga xam ne Habib la. waaw ma yeggale tuuti laa déglu te li nga wax d' accord ma dara maire dama laa <laughs> mais li nga vraiment d' ma ci. Mm. mais daal ñun il faut bu fekkee da ngaa bëgg analyser lii xew nii da ngay analyser lan moo ko waral ndax bu situation normal amoon kenn du toog fii di naatable Ousmane Sonko dina bokk ci élection yi wala du bokk ci élection yi. li normal te Sénégal yëpp xam ko ñi jàng droit ñu ko jàngul xam ne Ousmane Sonko war naa mën a bokk ci te bu ñu demee conseil constitutionnel dañuy valider candidature mais wax nga ci biir wax wax joo xamante ni moo ëmb wax jëpp mooy jënax bu bëggee yaraw day bëri pax kon yi nga fi gis yëpp ay stratégie la yoo xamante ni xalaatuma ma fukki xel ak juróom xalaatul ma toog ci plateau télévision naan lii lii moo ko waral wala léeg-léeg moo ko waral pour man intéressé wu leen defuñ ci débat ci ci parti bi kon lu ma ci wax sama xalaatu bopp la te sama xalaatu bopp nag amul importance ndax évité ma fi donc comme que loo xamante ni waxtaan wuñ ko instance parti bi man du ma fi di ko prononcé wu mais daal li wóor ba wóor mooy ñun ni ñuy dox man boog li ma concerné Ousmane Sonko bu ne woon wootee leen bant bi sax man bant bi laay wooteel te bëri naa ci ay morom ñun yëmuñ ci Ousmane Sonko namm naa la dañ cee boole Ousmane Sonko wóolu naa la. dama la dama la ko exemple rek maanaam ñun ñun ni ñuy doxee ñun Pastef ni ñuy doxee ak militants yi nga xamante ni xam. xam nga nit ko dul jum amul mais bu dee jum tamit comme li ijtihaad xam nga nit ko mën nga am yéene defar boo ci jumee dañ lay may dañ lay fay yool ku bëggoon a defar lislaam la texte la kon ñun li ñu wax foofu mooy ñaar lañu bëgg wax foofu mooy xam nañu Ousmane Sonko la comme yow comme man mais xam nañ yéene moo sell la yéene mooy lu safi Sénégal te lii di xew nii dafa gën a dalal suñu xel ci moom mi ñu xam nga pour lan mooy li Sénégal yi di wax sama bopp moo la gënal du bañ naa la moom dalu ko bu dul man du baax moom dalu ko mm-hmm. ndax tey jii situation yi homme politique yi fu ma si toll yépp dañoo sacrifier seen parti ngir ñoom seen bopp moom moom bi mu ci tollee war na ne man sama bopp amul importance mais bi apporté def lépp ndax bi ñu essayé ci seen carte man sama téléphone bi li ci nekk ci carte bu matul 2000 jege na ko ñoo xam ne dañaa ma sama carte njaboot yépp dajal naa ko mi fii kan laay parrainer man leen nañ déglu parti bi bu parrainage jotee Ousmane Sonko dañu wax nañ parrainer diw bi pertinence yi desee dix jours dix jours bi jógee Ziguinchor DG bañ na duñ jox seen fausse pertinence président Ousmane Sonko ne nañ parrainel fii 111 Bassirou Diomaye Faye tekkiwul Bassirou Diomaye Faye mooy seen candidat déggoo benn yoon passé communiqué ne Bassirou Diomaye Faye mooy seen candidat ba léegi benn candidat lañu muy seul unique candidat bu président Ousmane Sonko kon jàpp naa ne yii nga fi gisaat yëpp ay stratégie la yoo xamante ni du ma toog fi di ko wax mais bu waxtu fii may di ko waxtaane te la 30 yëpp ñu leen jox mooy investir président Ousmane Sonko def ko président 2024. mais nag am maa jëmmi rendez bi nga xam ne am nañu ko Sénégal yi Sénégal yi bëgg changement ak li ñu dund ci 12 ans yi duñu bàyyi ba heure bi suñu jëmmi bopp tax ñu sacrifier projet boobu xalaatuñ ko sax suñu fukki juróom fukki junni xel ak juróom xalaatuñ ko ñun daal li ñu woote ko mooy bëgg bëre bañ bëre lu mën a xew élection présidentielle dina am te Pastef dina ci bokk man balaa may dem 30 bi Pape man waxtaan yi ñuy wax ci suuf ne. exactement instant bi mu ngi am. maanaam fexe ba euh, situation bi euh, décanté wu crise bi nekk ci jamono ji ci réew mi ñu fexe ba euh, président Macky Sall ak Ousmane Sonko waxtaan di am seen biir ndax it dafay am solo déchelle di am. waxtaan yooyu noonu dafa ñoo xamante ne ñu ngi ci neen ñu ciy dox waaw moo tax ñuy laajte di leer lu itam waxtaan yooyu nee na daje bi xam nga xam nga li wér ba wér mooy euh, waxtaan moom daa war a am. même bu amul tamit daa war a am ndax même guerre sax dañuy toog ci plateau di waxtaan teewul bomb yi di tàkk kon jàpp nañ ne. nga wax leer nag. àggali waaw wax yi daa am nu mu fi meloon kon jàpp waaw kon jàpp nañ ne waxtaan daa war a am. mais situation bi dafa yegg foo xamante ni waxtaan dafay munta yombati ndax mbir mi bu doon mbirum politique comme politicien yi daa am di nga mën a jàpp ne waxtaan mën a jàmm mais mbir mi dafa dem ba weesu politique mais mbiru animosité la mbirum bañante la. Mm-hmm. ndax da ngay sentir ku bokk APR buy wax ci ku Pastef day mel ne ku ko rayal taawam ci wax ci lay wax ci moom. en ku bokk Pastef it léeg-léeg kasaare ko noonu kon mbir mi pour jol amati ci dootu ci yombati. mais est-ce que yegg na ci ñoom ñaar léegi ma yeggale tuuti ndax képp ku taxaw ne la président Ousmane Sonko yónnee na kenn mu def médiation wala kenn dina ñëw ci moom def médiation mu déglu la waxul dëgg ak ku mën a doon. yónniwul kenn yónniwul kenn kenn ñëwul ci moom def médiation yi mu déglu la wax ak yow. concernant ki nga tudd léegi euh, wut na permis ay yoon yoon pour gis président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko nangu ko recevoir. déedéet ah. président Ousmane Sonko nangu ko recevoir li tax nangu ko recevoir xëy na lu ay raison la. waaw ah, dama yegg egg dinaa yeggale foofu dinañ fa yegg effectivement gis na ko Pa Ousmane Pa Assane gis na ko mais eggalee gu ma wut na permis ay yoon yoon pour bëgg a gis président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko nangu mu ko recevoir boobu président Ousmane Sonko mi ngi nga ko hospitalité ci ni yi muy def nii génn di jaxase xelu Sénégal yi bi président Ousmane Sonko wax ji nit ñi ñëw naa ko diw recevoir ko